doolu lay jàmm tey nag ñu ñëwaat am mbégte ci seen seen leader bi di people 221 ñëw seeti suñu benn euh, jigéen boo xamante ni fan yee ñu ngi ko gis ci réseaux sociaux yi mu génn doon annoncé benn problème bu mu am entre moom ak jëkkëram ba ñu kidnappé ci doomam moom lañ fas yéene ñëw seqal waxtaan soxna si dañ lay bàyyi nga nuyoo. waaw ah, salaamaaleykum Sénégal. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp. yëkkatil micro bi tuuti. Mm-hmm. Euh, mën nañu mën nañ la euh, waaye nga présenté wu ñu xam yaay kan ak. Euh, mm-hmm. waaw man de maa ngi tudd Awa Claire. Mm-hmm. waaw maa ngi tudd Awa Claire dëkk Golf Sud. waaw d'accord tey mën nañu xam fan yee passé dañ la gis. nga génn doon def benn déclaration. yow ak sa borom kër. mën nañu xam c'est quoi le problème. waaw man vendredi. Euh, sama dama ne woon fii. Mhm. sama kër maam maag sama doom ñu ne fi mu ne ma yaay dama bëgg a dem euh, weekend. Mhm. ci sama papa. Mhm. ma ne ko waa amul problème. soo demee da ngay ñëw samdi parce que damay togg ceeb. naa la woo nga ñëw añ ci la dem euh, weekend man ma dem hôpital Dalal Jàmm. fan la dem weekend. kër papaam. fan la. fii nii tout près sorewuñu. d'accord ay même pas motu sax quelques kilomètres fii fii rek la. d'accord donc koñ bi la daal. d'accord ci la dem man ma dem hôpital Dalal Jàmm parce que sama jëkkëru yaay. Mhm. dafa feebaroon feebar bu mhm. xaw a yàgg tuuti ci moom. Mhm. donc maa nekkoon ak moom ci hôpital beeg yooyu noonu. ñu waroon ko opérer mercredi. jour bi àjjuma bi may bi may dem hôpital bi dafa ma woo ne ma Eva médecin yi ñëw nañ fi nee nañ dañ ma war a opérer euh, jeudi. naa ñëw léegi ci laa ne Ada ne day dem. ma ne ko waa amul problème. Ada mooy mooy sama doom bi jigéen bi. voilà. Euh, six ans la am. Mhm. donc euh, ci la adaane day dem. léegi ci la dem ci papaam man ma dem noonu dem hôpital ba. Mhm. donc euh, noonu la def pour dem weekend ci papa ji. Mhm. yàlla def bi ma demee hôpital bay ñëpp si vingt deux heures. ma ñëw ci kër gi bi ma ñëwee ma sangu toog ci lal bi ma ne xaar ma woo Ada. appel vidéo ci numéro portable papaam. donc ci laa woote bi ma woote ma maa bàyyi bi ma wootee. jot ko. Mhm. papaam wuyu mu nekk appel vidéo whatsapp. Mhm. ci laa nuyonteeg moom. Mhm. mu ne ma la moo tax ñëwoo ma ne ko maa ngi nii doo ko jóge hôpital mënu ma ñëw fi kenn. comprendre nga loolu laa ko wax. waaw mu ne ma boo ñëwul sax nga andi xale yi. ma ne ko Olivia ma ko andi xale la. kon toog nit bu fanaanee foofu tamit da lay déranger rek. waaw comme que Ada nga fa am problème. donc loolu lañ kii. waaw mooy kii mooy ñaareelu doomam. ci la mère jox Ada téléphone bi. man tamit wala ma ci wax ma wax ak Ada nuyonteeg moom mu ne ma. dangaa jëndal Olivia chocolat yooyu bàyyi ma. waaw loolu mooy audio bi mu may envoyé bi mu après bu ñu coupé après la ma envoyé audio bi. léegi noonu man ne ko amul problème ñu nuyoonte ak Ada man ne ko man damay tëdd dama sonn. kon Ada bu suba. mu ne ma waaw yaay bu suba man ne ko bu subaa a nga ñëw añ. damay togg ceeb bu weex. mu ne ma ok donc nag yàlla def ñu fanaan jàmm ma yeewu vers treize heures. ci laa jóg euh, ba treize heures bi ma tayee ba pare ci laa dem. xaar moo adaa ci laa woo papaam appel vidéo whatsapp jëlul ma woote woote jëlul ma ne aa ah, xaar ma def ko audio euh, kii bi appel normal rek mhm. ma woo ko appel normal jëlul ma ne sama doom bi awa euh, kiyal ma wooteel ma Moustapha ci téléphone am ma mhm. woote woote jëlul ma woote woote jëlul jël sama portable maam ndax yow amoon crédit ma woote woote jëlul ma insiste nag mhm. jëlul sama mel ni que dafa am nuñ ma touché daal ne ma yaa quelque chose automatiquement léegi noonu man ci laa jël mama bay ci la ci laa ci laa ci laa ci laa ci laa jël euh, sama téléphone maam insisté insisté. Mhm. jëlul après nag ci la ma envoyé vocal vers deux heures trois. ci guddi non ci bëccëg. Mhm. deux heures trois maa ngi ko wax ay une heure et quelque deux heures trois su ma envoyé ma vocal ne ma Eva dama nekk yoonu kolo euh, yoonu wakaam. Mhm. su ma retourné su ma wàccee ci oto bi dinaa la woo. moom moom sa jëkkër moom sama jëkkër. léegi nag ma ne ko mais ala Ada Ada dafa ànd ak yow wala dara envoyé waat ko vocal. Mhm. tontuwuma ba tey mhm. may wax ak yow nii. Mhm. après nag ma jëlaat téléphone sama maam insisté insisté moom jëlu portable bi ma insisté encore mu coupé téléphone bi. ba nii. dégguma ko léegi nag ma ne xaaral ma daw dem kër ga. ci laa fay gas bi dem kër ga. fekk juste sama yaay di ñëw ma ne ko xaar ma maa ngi ñëw sama maam ngi toogoon ci fauteuil. lu xew mën ko dara ni nga mel mën na ko dara ci laa dem kër ga ubbi appartement bi. Mm-hmm. ubbi chambre bi. Mm-hmm. vérifier ne gis na ni yóbbu na ordinateur am. Mm-hmm. ma jubal ci armoire bi. xool ni vide na yëre yëpp. vide dàllam yëpp. lépp li nga xamante ni da ko intéressé te urgent la. yëpp la vide. waaw ma xool sama photo cadre yi ne woon ci kii miir beeg yooyu. dafa dindi foto yi ci cadre bi dëpp cadre yi noonu. benn photo individuelle la fa bàyyi muy sama photo. ci laa xam ne kon papa ji dem na mm-hmm. ci laa ñëwaat dugg si wàccee sama doom bi ma boot mm-hmm. sol beneen yére ne damay dem police mm-hmm. bi ma yegsee polisu golf bii nii bi nekk cité Aline Saw bi ma ñëw na leen ah sama papay doom bi dafa sàcc sama doom dem waaw ñu ne ma papa ji nan la mën a sàccee xale ma ne ko ah ñëw naa demoon na weekend fanaan fa mu war a ñëw añ si mhm. waaw woote naa ba sonn mënuma koo jot mhm. dem naa ca kër ga nag fekk naa mu vide armoire bi benn yére desatu fa mhm. waaw daal di yéeg yëpp yóbbu na cadre yóbbu na ko ak yenn document mi mu ne ma ah loolu da ngay jéem a xool ndax weekend lañ nekk yooyu man na ko man mënu ma xaar weekend ndax diggante bi ngay xaar fii ak lundi maman taxawal fi ngay xaar fii ak lundi donc kooku mën na génn Sénégal. Mhm. mën na génn fii ni frontière. Mhm. waaw mu ne ma ah kon da ngay jéem a dem Dakar. Mhm. déposer fële central. ci laa génn. daw dem central. ci guddi ci même heure bi. ay euh, boobu boobu kii jot na euh, trois heures et quelque. ma daal di daw central yegg central. annoncé ñu ne ma naa yéeg ci kaw. Mhm. brigade des mineurs. Mhm. ci laa dugg dem foofu noonu waxante kenn foofu ci biir bureau mhm. mu ne ma xaaral maa ngi woo brigade des mineurs yi mais dañoo dem dañoo nekk sur le terrain. mais xaaral tuuti ma toog xaar xaar xaar ma laaj ko mu ne ma ah ba léegi jotuma kenn. ndeysaan ku baax la sax mujjant bi jéem na woo kenn laaj ko ne ko euh, waa kii fan lañ nekk ñu ne sur terrain mais. ñu ngi ñëw. ci laa toog xaar xaar ba vingt heures et si lañ ñëw. ma am ko ma ci waxal ma ne ma expliqué ko cas bi nu mu demee ma ne ko sama papa doom dafa kidnappé sama doom daw. Mhm. mu ne ma ah, mu ne ma mu ne ma ah xaaral ma xool commissaire mu woo commissaire d'après li ma expliqué. Mhm. woo naa commissaire waaye nee il faut ma xaar lundi. Mhm. ma ñëw déposer plainte. parce que weekend la. la. donc ma ne ko mais sëñ bi. ah da ngeen may jàppale te yàlla tax ndax su ma xaaree ba lëndi hmm. loolu day nekk beneen trois jours. te hmm. kii mën na génn bu dee Mali la jaar wala gàmbi hmm. facilement day jàll. mu ne ma ah il faut nga xaar ba noonu gëmal yàlla rek. waaw mais nga xaar. léegi si laa delluwaat ñëw bi ma ñëwee nag ci yoon bi. lañ ma woo ne ma defal vidéo ñu ñem ko tasaare xëy na nit ñi xàmmee kook dara. d' waaw à de vidéo yi noonu mu mel ni sax euh, dafa da nga ñamoon ay problème ba sa euh, dugg ci ba ngeen dem ci wàllu yoon. waa loolu daaw la woon. Mhm. ci même mois bii nii. Mhm. ci même mois bi daaw la woon parce que maa sama jëkk dañoo amoon problème bu ndaw. Mhm. en tant que couple. tombé juste sama yaay ñëwoon fa. coow li bari ñuy jàppante ni ma jàppanteeg moom mu xoj ma noonu sama yaay jàpp ni mu ne ko bàyyil bàyyil nangul ba. ci sama yaay xool dafa xool dara rek dóor ko ko ndekete laal na bopp mu toj. d'après loolu bi mu amee. mu dem hôpital. mu dem def ñu defal ko cervical médical 21 jours. bi mu ñëwee. Mhm. sama yaay ñu wollu ko ñu dem police golf. Mhm. léegi ba ñu demee. Mhm. gaa yi entendre ko ne ko kii dafa indi cervical médical 21 jours da nga koo gaañ. waaw sama yaay ne leen moo amuloo intention sa def lu ñaaw xëy na diggante ndey ak doom. comme li may dund nii tey rek. toog naa sa menu yàlla gisuma sama doom métti na ma lool. kenn xamul lu may lu may dund sama biir xool bi waaw Mm-hmm. léegi noonu après si la ko police yi téye ko fa. Mm-hmm. mu fanaan fa. Mm-hmm. yendu fa après si lañ ko transfert euh, tribunal Guédiawaye. waaw si lañ ko transféré tribunal Guédiawaye. waaw léegi nag si laa fekk ni avant loolu di am sax defoon naa procédure divorce. tombé tamit lii am ma génn ma dem seeti papier bi andi ko. voilà léegi nag si la si si lañ si lañ si lañ renvoyé sama yaay. ba quelque temps. Mhm. date bi jot sama yaay dem. Mhm. ñu waxtaan juge yi entendre kook yooyu noonu. Mhm. après si lañ ko libéré. de grâce. sant ko suñu borom maman yooyu noonu. te teewul yaa ngi continué nekkaat. nag bi ma ñëwee ma ne du ma doot boobu nekkuma fa maa ngi sama kër yaay. ma ne doy na sëkk sëy bi doy na ak yooyu. mais xam nga waajur bu la ñaanee rek. danga nga koy may. waaw sama maam taxaw ci. sama jëkkëru yaay taxaw ci. na ma sama jabar la tëjlu. waaye da sëy. te dangaa am ñaari doom ak moom. Mhm. toogal nga muñ maa la ko ñaan. Mhm. mu ne ma bul tas du ma ko mës a fàtte bis bi may wax loolu jour anniversaire Ada la woon. Mhm. le premier décembre. sama jëkkër yaay wax ma lool. ne ma nga toog nga sëy ndax am nga moom ñaari doom. waaw ci laa bàyyi lépp. ñu bari mere ma ci nag teewul tamit maa ngi toog. ak sama sëy di ko muñ. waaw mais teewul après loolu am na. dëkkatuma moom. waaw léegi mu ne ma comme que nekkoo fi dama bëgg louer benn si mm-hmm. la ko luwee mm-hmm. ñaari mbokkam ñu dëkk fa mm-hmm. man ma nekk ak sama maam fii mais kër yi ñoo ñoo presque sorantewuñu des fois damay dem weekend waaw mën naa dem def fa une semaine mën naa dem def fa trois jours ñëw des ma nekk fii nii lu xew ma dem parce que sorantewuñu voilà donc noonu la demee looloo waral suñu séparation ñaata at ngeen sëy waaw maa ngi moom ñu ngi ànd deux mille euh, deux mille quatorze deux mille quatorze waaw 2014 lañ ànd 2014 trois ans lañ génn waaw 2014 2000 2016. 2016 lañ lañ lañ lañ marié wu. d' accord 2016 ba tey ñu ngi marié wu. d' accord mu mel ni mu mel ni ci ni ma la déggee sëy bi dafa am ay ay jafe-jafe wala ay mettit yoo xam ni. yaa ngi ko ci doon dund parce ki dem ba yóbbu sa yaay police. yaakaar am na ay jafe-jafe. Mhm. bari na sax mais jigéen buy sëy moom da ngay muñ. Mhm. parce que man ci sama àdduna li ma jàpp man dama jàpp ne su ma yàlla mayee borom kër. Mhm. sama choix la woon. damay toog ci sama sëy mhm. ba keroog yàlla yóbbu ma mhm. waaw parce que ñaanu ma woon yàlla di jur fii doom yi bokkul ndey ak baay da loolu moo nekkoon sama choix mhm. dama ne woon yàlla soo may may jëkkër nag ma may jëkkër joo xamante ni du ma ne fi di tasaka dem ak dikk moo tax ba ba léegi dama toog di muñ maa ngi muñ nag mais yàlla xam na ni xaw ma woon ni muñ bi yëpp lii dina ci jur d'accord voilà d'accord ma ñëw ci xale bi euh, bi mu koy yóbbu souvent da nga ñu amoon problème wala da ngeen doon werante ci semaine boobu noonu dafa am loo xamante ni. diggante boobu noonu. dafa man dama waroon na voyager. yaa ngi may dégg bi ma waree voyage parce que sama yaay doomam mu ngi Nigéria. léegi tataam bi fa nekk dafa ne na ko ñoo jëlsi. léegi nag yàlla def ni ma waroon voyage maman yooyu. comprendre nga bi ma waree dem. ma ñëw ma ne ko ah sama yaay yónni na ma seen dëkk pour ma dem jëlali ko ucce muy doomam bu góor bi. Mhm. waaw war am ay dix-huit mhm. wala nga xam jege na léegi dama bëgg su may dem. Mhm. ma comme que sama borom kër la il faut ma tàggu ko. Mhm. dama bëggoon Ada reste fi ak ak ak Awa mooy xale bi dem nii. Mhm. léegi kii nii. kii nii boobu moom feragul fa lii laa ko feral même pas un mois. Euh, Olivia toog ak sama yaay bu ko defee mu ne ma booy dem mën nga yóbbu Olivia. parce xale la. ma ne ko ah man de wax dëgg yàlla ki may jàppale est-ce dina mën a jënd billet boobu pour mën a xale bii nii. mu ne ma si. Mm-hmm. war na ko mën a jënd parce que star la mën na leen jàppale. Mm-hmm. ma ne ko ah bëgguma ko teg coono parce que ku lay jàppale da ngay xool li mu gën a oyofee nga jàppale ko. dëgg la comprendre nga. Mm-hmm. noonu noonu fekk sama passeport bi dafa jeex. ma dem déposer passeport ba jour bi may jëlee sama passeport maa moom ñoo ànd. dégg ma récupérer passeport bi. léegi noonu ñu ñëw toog. ñu def une semaine deux semaines. mu woo ma. ne ma waaw sama sœur daf maa woo. asta astafurla avant boobu dafa ne ma bu fekkee ni sax diggante boobu am naa xaalis ñu àndandoo dem nigeria mhm. waaw. Mhm. ma ne ko man damay dem defuma fa une semaine. Mhm. lu mu bari bëri xanaa quatre jours trois jours ma ñib si. ndax jëlee xale ñëwaat. waaw mu ne ma waaw parce que man. yàgg naa. maman doucement. yàgg naa non. mu ne ma yàgg naa bëgg a euh, dem mais aw ma moyen. mais bu fekkee ni kooku noonu mën na la jàppale. yow mu jëndal la billet. Mhm. yow ak xale bi. donc dina ma arrangé bu ko defee ma jënd bie man ak Ada dem. Mhm. ma ne ko kooku ba ba léegi tontuwuma. Mhm. parce que jamono ñu toll nii. Hmm? waaw jamono nii. Euh, dafa xat. pour ma jot ko sax problème la. toogaat quelque temps même pas moins de une semaine. mu ne ma carrément euh, sama yaay dafa feebar. sama sœur nee na fu mu toll nii feebar na ba mënatul jóg. waaw dafa paralysé fi mu toog. Mm-hmm. léegi nag dama bëgg a dem Nigéria. Mm-hmm. waxal ki lay jëndal billet bu fekkee jënd na billet man ma jënd ada mhm. ñu àndandoo dem. Mhm. ma ne ko kooku joxagu waxaguma dara ci billet bi. Mhm. te et puis pour l'instant même bu dee dem dafa am. pour l'instant man mënuma kiti ndax sama jëkkër yaay dafa nekk dans l'hôpital. te opération lay def. instant bii nii xaalis buñ ko opéré yëpp amagul. il faut ma xool nuñ ko mën a jàppale. diggante ambassade ak ak ay mbokkam. man loolu ko expliqué. mu ne ma waa baax na. Mhm. ñu toogaal quelque temps mu ne ma maa ngi la wax waxu voyage bi. Mhm. mais dafa mel ni intéressé woo. Mhm. waaw bëggoo dem ak man ma ne ko du question bëgguma dem ak yow. parce que décidé gu ma pour mën a dem Nigéria actuellement nii nii nii. même xale bi ma mën a jëli mënu ma koo jëli bàyyam nekk ci lalu hôpital. waaw loolu laa ko mujjee wax. d'accord kon mu mel ni moom dafa bëggoon. Euh, jël la daa non moom bëggoon na profité ci maman yi ma war a dem jëli xale bi. Hmm, waaw parce que yàgg nay bëgg a dem. Hmm. xëy na situation moo tax mënul dem. Hmm. yàgg na may proposer pour dem. ma ne ko kii décidé gu ma su ma décidé dinaa dem. moom d'origine am léegi nag entre temps ci diggante bi loolu noonu bi mu amee. mu ñëw benn jour fii taseeg man fii. ñëw ne ma dañ bëgg ñu waxtaan ma ne ko sa maam tëdd na konaa ñu yëg ci kaw nga toog ñu toog ci kaw terrasse bi ñu waxtaan mhm. ci la ñuy toog di waxtaan mu ne ma dafa bëgg ñu dem mhm. ci fin de fii ak le vingt wala la trente mhm. mois bi ñu du weesu nii ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko ah ça dépend rek bu ma kooku jëndalee mu ne ma même kooku bu jëndul billet mën naa jënd billet ñun ñu dem ma ko mais instant bi mënu ma dem Mm. instant bi sama doom dafa war a def bef dafa def dafay def befem mooy sama doom bu jigéen bu mag bi awa d'accord mu ngi doog def befem te dafa war a emplacé wu ci école am mm-hmm. te mënu ma ko fay bàyyi ndax sama maam mag la mm-hmm. ñun doo fi ne ak sama maam mm-hmm. donc instant bi nii euh, mënuguma dem il faut ma xool ni may programme programmer ma tëb rek voyager si moment bu gàtt nii na nii na nii waaw te et puis yow mën nga ma jiitu loolu laa ko expliqué mën nga ma jiitu boo ma jiitoo dans peu de temps man mën naa ñëw ak xale yi. Mhm. ba ñu ma ànd ak moom dem dëkkam. Mhm. mais dans les bons termes. Mhm. voilà jógul micro bi. dans les bons termes maman reste tranquille dans les bons waaw léegi si laa ne ko léegi da nga may jiitu. soo ma jiitoo. man après ma ñëw xale te su may ñëw tamit. du ma tëb tëb rek. dem Nigéria. ak mhm. Nigéria ni mu toll. Mhm. ku nekk xam nga Nigéria ni mu mel. Mhm. dëkk la boo xamante ni euh, munoo xëy rek gis fa nit. waaw c'est impossible. léegi noonu ma ne ko su may dem tamit damay defal xale yi passeport Sénégal. parce que xale yi fii lañ juddoo. ku ci nekk am nga sa nationalité sénégalais. dama defal seen papier yëpp téye. voilà ku ci ne am nga sa nationalité sénégalais mu ne ma pourquoi muy am passeport sénégalais. su ñuy dem passeport Nigéria laa leen di defal. yaa ngi may dégg ma ne ko xale yi mën du ma leen defal passeport Nigéria. Mhm. passeport Sénégal fii laa leen defal mhm. c'est à vingt mille francs ma defal leen ñoom ñaar passeport. Mhm. ñuy werante loolu ma ne ko tamit su may dem du ma ànd ak yow. da nga may jiitu. soo ma jiitoo mooy dernier kàddu yu ma ko wax fii ci kaw ter soo ma jiitoo man ma defaral xale yi passeport. ànd ak ñoom. dem ambassade. su ma yegsee euh, aéroport Sénégal damay jaar consulat wu Sénégal. déclarer sama bopp. ngir bëggee ñibbisi. su fekkee mënumaa ñëw man ñoom dinañ xam ne dugg naa ci dëkk bi. d'accord mais foofu noonu lan moo tax ngay ngay xaw a sóoraale pour di ko xaw a bàyyi xel ni moom. waa parce que daf ma mës a wax ni. Mhm. waaw moo tax automatiquement bi ma wootee. Mhm. sama xel ñaaw sama sixième sens ñëw. Mhm. parce que daf ma yàgg wax ne bis boo bis boo dof dof loo ba ma dem sama dëkk saa nga yóbbu samay doom. du baax ci yow. waaw dinaa def tout ba nga xamante ne dootoo yeewoo. waaw ça veut dire que ni mooy daf may rey. waaw. Hmm. mais loolu ay xuloo yu sew sewaan la maa moom samay xuloo moom du ci lenn. Hmm. ci xale yi rek la. Hmm. parce que dafa yàgg bëgg a yóbbu xale yi. parce que dafa ne bu demee dootul ñëwaat donc looloo tax man tamit. Mm-hmm. ma ne ko man su ma demee damay ñëwaat. Mm-hmm. ñaan naa yàlla am sama kër fii ëllëg su ma deewee sax samay doom. am mm-hmm. fu ñu mën a ne. loolu moom daf ma yàgg menacé. waaw ci ci yooyu noonu wax yu demee noonu mooy waral tout le temps souvent. sama xuloog moom ci xale yi lay jóge. waaw parce que dafa xool ni xam ni man. bëgguma dem dëkk dëkkam. comprendre nga donc moom itam mu bëgg a def de tout. bu ko defee moom xale yi si boppam. dina xaw ma daal nu muy nu mu man daal ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu réagir nii. Mhm. sincèrement parler daf ma nax na ma daal. mais boobu ba tey xale bi dégg googu. boobu ba tey dégguma xale bi. Mhm. depuis vendredi laa ko ci suba gi ci suba laa xam ne. Mhm. quitté nañ seen nañ fi. dem na mënuma koo jot. vers vers vers deux ba tey dégguma ko. téléphone am nag mu ngi doon sonné. des fois mu taal connexion am bàyyi. mais ndekete. sa waay moom dem na. dem na fan waaw dem na Nigéria. Nigéria tey la am confirmation bi. ci suba gi nii. Mhm. ci suba gi nii laa yeewu 9h parce que hôpital laa jógee. Mhm. bi ma jógee hôpital. Mhm. fekk démb lañ dugal paa bi bloc. ñu hmm. defal ko opération. Hmm. macha allah yàlla may na ko jàmm. ba nii may waxee yow nii. léegi si laa yeewu. Hmm. ci suba gi nii gis vocalu sëram ndax démb rek sëram mu ngi may laaj. ndax dégg nga sama frère ma ne ko dégguma ko ak Ada. sëram mu ngi Sénégal wala mu ngi Nigéria seen dëkk. sëram na ma envoyé message na ma boobu après nga woo ma. ci laa ko woo. mu ne ma sama frère ñëw na. ak Ada ñu ngi fii ci kër gi. ci jàmm. waaw gëmuma ko ma def appel vidéo mhm. woo ko gis sama doom adaa ma ne ko adaa yow nan nga mën a demee te tàgg woo ma mu ne ma bi may dem sama papa daf ma doon nelaw mu yee ma mhm. ne ma jugal da am fu ñuy dem mhm. nii la ma adaa wax oh, nii laa ko gisee tey ci suba waaw benn part damay sant suñu borom parce que yaakaaroon naa ni dee na ci àll bi ñii ne nañ ma dañ ko jël pour sacrifier dégg naa wax ju ne mais damay sant suñu borom mu ngi ci jàmm mu ngi ci jàmm waaw ndax itam yóbbu na sama doom kidnappé na ko yóbbu ko génn Sénégal waaw san autant que autorité yi xam ci dara ndax itam dama jàpp ne un nan fan ki pas encore major xale bu ndaw de six ans tey même bu doon yaayam da koy génnee wala papaam war na mën a wane papier yoo xamante ne war a preuve boo xam wala ngeen woote pour xam ne xale bii di génn ndax am na droit pour génnam déet papier xale bi ci yow nekk papier yëpp mu ngi ci man maman papier yëpp mu ngi ci man papier xale bi yëpp mu ngi ci man mhm. et puis demoon dem naa ba mairie laaj waa mairie ndax est-ce que Moustapha dafa ñëw fi Moïse la tudd mhm. ndax ñëw na fi jël fi ay stress yooyu ñu ne ma non non mhm. waaw mais stress loolu kii parce que mën na yónni ku ne pour mu dem d'accord mais suffit que nga joxe date de naissance beeg yooyu rek d'accord kon nga jàpp ne xale bi dafa génn frontière sans autorisation non parce que d'après bi ma demee commissaire li ma expliqué nee na ma xale bi mën na génn. Mm-hmm. même sans papaam yor ak yooyu noonu. Mm-hmm. waaw loolu la ma mm-hmm. expliqué. d'accord kon tey ban message ngay lancé ban volontaire yi. waaw l'essentiel li may lancé Sénégal. surtout monsieur euh, monsieur le président. Macky Sall. dama bëgg mu xoolaat li jëm ci affaire xale yi. parce que dafa am loo xam ne dafa métti ci xol. muñ naa nag. mais dafa am loo xam métti na ci xol son excellence. Mm-hmm. tey jii nii dëgg la jigéen day sëy mais jigéen ñu ngi jàkkante lu métti seen biir sëy yi. Mm-hmm. ndax dama xam ne nga jur doom panaan neuf mois. Mm-hmm. nga yor ko fi nga ko war a yoree. jox ko éducation bu baax xale bi jàng na fi. sëy si euh, def na fi euh, jardin. petite section ak grande section yëpp lundi bii passé la waroon dem école mais inscrit ko ci école bii. voilà donc papaam xëy un bon jour mu fanaan fa xëy un bon jour am am moyen yoo xamante ne jël na xale bi ba génne ko Sénégal. Mhm. sa autant que ndeyam bi ko sukk jur fii. Mhm. xamu ci dara. Mhm. loolu dafa yéem. métti na ma nag. li sama doom génn Sénégal. parce que man dama jàpp ni dès le moment bi affaire bi amee. ma génn wax ak autorité yi wax ak ñëpp ñu dégg ma. ci ñi ñi nga xamante ne jot nañ maa dégg. Mm-hmm. woote naa fu ne pour ñu mm-hmm. jàppale ma. ndax mm-hmm. Sénégal boo amul moyen kenn du la jàppale. da ngay ñàkk sa njaboot. wala nga dee ci zéro. war nañ war nañ war nañ xoolaat loolu. ndax tey boo demee ci poste police. automatiquement ñu ne disparaître. war nañ mën a wax aéroport. nañ surveiller telle personne. waaw ak xale wala nangam même ba ci. frontières yi. Mhm. ñu mën a alerte. Mhm. mais xale bu dem. Mhm. tipis euh, samedi matin. dimanche lundi ma dem déposer plainte. aw ma ci dara lu leer. métti na ma nag. waaw métti na ma trop. waaw damay ñaan képp kuy jigéen. dégg lii. nañ ma jàppale. ngir sama doom ñëwaat Sénégal. waaw papaam sàcc na ko kidnappé na ko yóbbu na ko ba dëkkam. waaw te et du question man doo ngay dund lii. ñun état Sénégal dafa war a dépasser lii. tey Sénégal tey bu dee Europe en France ak fu mu mënti doon ci Europe. Mhm. balaa ngaa yóbbu xale muy papa muy doom. Mhm. papier yu leer nañ dañ la fay téye. Mhm. la moo tax Sénégal mënuñoo contrôle loolu. loolu mënuñu koo contrôle. téye téye ki nga xamante ni dafa yor doomu jàmbur wala. Sénégal gi nit ñi dañuy jël xale sax dugal ko ci saak. di ko yóbbu dëkk ak dëkk. te ñun Euh, gouvernement yi fii duñ ci xam dara garde yi nekk ci frontières yi. Mhm. duñ ci xam dara. Mhm. wala nga neexal xaalis. Mhm. xale bi jàll. loolu dafi war a jeex. waaw man nag li may wax Macky Sall. message bi moo ko moom. ak madame de madame de la première ministre. waaw képp képp képp kuy jigéen. surtout euh, madam euh, kii. Marème Marème moom laa la bëgg a wax. Marème fay jabaru président. dama lay ñaan jigéen nga te it yaa fi nekkal jigéen ñi. Mhm. waaw ginnaaw président. Mhm. gis nga lii dal nii ma dal na ñu bari. métti mhm. na nit jël sa doom. yóbbu ko frontière ak frontière jëlu avion de. yoonu suuf bi la jaar. loolu la ma sëram wax yoonu suuf la jàpp pendant huit jours. Mhm. sànq ci neuf heures la yegg seen kër. Mhm. sëram woo ma parce que xam na ni ma men oo mhm. maa ak ñoom benn problème. jàmm laa leen seq ak ñoom. toppatoo seen frère si Sénégal ba mu normal mais gis nga li mu def. jël na sama doom sàcc na ko yóbbu na ko ba Nigéria. kon na ma dëkk sama dëkk man. mënuñu mënuñu ma assister ci dara dara dara dara. donc loolu dafa métti. dafa métti man daal maa ngi ñaan képp ku ma mën a jàppale. ci ci gouvernement bi ndax yéen a ci mën a teg loxo. waaw mhm. yéen rek ci mën teg loxo ci mhm. mën a jàppale ma sama doom ñëwaat Sénégal. Mhm. ngeen jàppale ma te yàlla tax. d'accord waaw ndax métti na ma torop. d'accord d'accord jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne a ñu doon suivre euh, vraiment na torop métti na torop mais euh, ñu ngi wax ñi nga xamante ni ñooy état nañ ko jàppale dimbali ko ba mu jotaat kii nga xamante ni mooy doomam parce que depuis mu nekk xale ba âge bi mu am mu ngi koy toppatoo dugal ko ci ay cher. di contrôler li nga xamante ne mooy avenir u xale bi tey un bon jour mu xëy jëkkëram jël ko yóbbu ko Nigéria kon loolu tamit état am na ci part de responsabilité parce que tey góoma ni nit war ngaa mën a jël sa doom wala nga jël nit xale portable sax boo koy indi dinañ la vérifier ndax portable bi am na ay këyit wala amul këyit rawatina nag nga jël nit njaay ak i noppam jël ko yóbbu ko frontière ak frontière pendant huit jours xamu ci dara kon ñu ngi lancé message état ak ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu dem beeg dikk bi ci frontière yi ñu jàppale ko mu jotaat doomam ah, ñu ngi leen di jox yeneen dig daja ci suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë